société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse dalee jàmm ñoo ànd xëy yër yéen i ñu xëyando yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñaari projet de loi yi nga xam ne modifié nañ ko voté ko ci assemblée nationale jëm ci wàllum code pénal code procédure pénale xeex wàllum terrorisme yéen i gi ne na coow li ba léegi ne jeexagul pënd bi wureegul ndax ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi nañu ne baaxul ci réew mi yéen kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb neena na li nga xam ne moo jëm ci wàllum xeex terrorisme ci Sénégal mbir mi dañu ko politiser waaye nag loi la boo xam ne mën naa nag naxasal li nga xam ne mooy opposition bi ndax bépp manifestation boo xam ne amal nañ ko bu débordement amee ñi nga xam ne ñoo ko organiser mën nañu leen a indi lay jafe-jafe yéen kaay gi di direct sa ñu xëy fekk fa maître Amadou Sall allié Macky Sall nee na nag loi nga xamante ni daanañu koy modifier voté ko ci assemblée nationale maanaam am na problème bu mag boo xamante ni am na sa am na sa indi ab erreur moom maître Amadou Sall nee na nag amu lenn loo xam ne ñor na fi ba ñu koy màcc nee na lii nga xamante ni daal mooy procédure d'urgence bi ñu ko jaarale loolee lu mënoon a ñàkk la ak lan moo tax ñu daal di koy def yéen a kaay gi di waa grand place ñu xëy fekk fa maître Moussa Diop mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon Dakar dem dikk moom nag dikk na ci yéen a kaay gi ñaawlu na bu baax a baax li nga xam ne mooy loi bi nee na baaxul ci Sénégal te dafay yàq li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi ba pare naxasal li nga xam ne mooy sunu démocratie bi yéen a kaay gi nee am na benn journaliste français bu bu tudd Emmanuel de Fuloy moom nag nee na réewum France dafa yebal ay magistrat ñu ñëw ci Sénégal ngir nag bindal ñu ay loi yéen a kaay gi di Dakar Times nee na en tout cas li am ba des ak coow li muy bëri bëri li nga xam ne mooy Sénégal am na ay menace terrorisme loolee lu leer la rawatina nag fi nga xam ne mooy Casamance ak Kédougou ak sénégalais yi nga xam ne maanaam ñoo bokkoon ci Boko Haram état islamique ak mi nga xam ne ñëw nañ ci Sénégal loole jaaxal na kilifa yi yéen na direction générale sécurité extérieure bu France ñoom nag nee nañu terroristes yi nga xam ñoo nekk ci nord Mali jamono ji buntu la ñuy wut jaar ci géej gi ngir dugg ci Sénégal yéen a kaay gi de l'info nee na en tout cas li am ba desal mooy gouvernement bu Sénégal ñoom nee nañu li tax loi bi ñu daal di koy voté en urgence nee nañu nag ay engagement internationaux la journal bi nee na deux poids deux ndax ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO na ñu fi Sénégal ay yoon yoon ay recommandation yoo xam ne Sénégal du ko jëfee jëm ci mbiri Karim Wade ak mbiri xalifa Sall ak lu soxal wàllum parrainage te moo ne am nay engagement yoo xam ne état Sénégal jël na ko ci CEDEAO te mboolem li nga xam ne CEDEAO ma koy sant Sénégal Sénégal dafa lànk ba tëdd sa naaj waay yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak quotidien xëy wax ci trafic international de drogue bi nga xam ne ma ngi wullee ñaay ci réew mi yéen a kaay gi nee na dafa am ab bato boo xam ne ci waaxu Sénégal la ñu ko jàppee mu yaboon li nga xam ne mooy drogue ñi nga xam ne ñooy direction des relations publiques des armées ñoom ñoo ko wax nee na ñu mari nationale bu Sénégal dañu ko jox ay xibaar ci guddi samedi jàpp dimanche na ko am na bato boo xamante ni ma ngi ci géej gi de jayeex jayeexi drogue moo ca nekk yéen a gi nee na teg nañu ko loxo yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na ci aéroport international Blaise Diagne am na benn jigéen boo xam ne moom tim dafaa yoroon drogue dure lu toll ci huit cent vingt cinq grammes jàpp nañu ko yéenekaay gi di L'As nee na nag consommateur drogue yi ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo ci àdduna bi maanaam bi ñu ko xëyma ab rapport moo ko wane toll nañ si deux cent soixante quinze millions de personnes yoo xam ne dañuy jëfandikoo drogue ci àdduna bi rapport ONUDC moo gi di Walf nee na njiitu réew mi di président Macky jamono ji ma ngi waajal li nga xam ne mooy ab tournée économique fi nga xam ne mooy Casamance attention Macky Sall journal ne a faa xew yéene kaay gi di réew mi quotidien ak na Macky Sall dem nag doon ko jaxal yéene kaay gi na Marème Faye ko fa jiitu préparé xam ne mooy terrain bi yéene kaay gi de la Tribune journaliste Alassane Balde di liggéeyee des médias moom ajuma ji nga xam ne moom la ñu génn takk der yi ñoo ko teg loxo daal di koy fitnaal loolee moo tax groupe des médias ñoom ñoom daan nañuy porte plainte commandant Saliou Ndao yéenekaay gi de l'Observateur mbaaw foofee nag am na ñeenti élèves yoo xam ne lab ñu si géej gi ba ñàkk seen bakkan te élèves yooyu def nañu li nga xam ne mooy seen épreuve sport jëm ci wàllum BFM yéenekaay gi di enquête nee na lu matul 24 heures am na lu toll si juróom-ñetti nit ñoo xam ne lab ñu si géej gi ba ñàkk seen bakkan yéenekaay gi xëy diñu xibaar naan ñu ca diwaanu Joal foofee dafa am am marchand ambulant boo xam ne teg nañu ko loxo ndax da doon violer benn xale bu jigéen boo xam ne mineur la ay atam toll ci fukki ak